rek nag man de maa nga doon ca revue de presse ba di ko di ko yeggali ca revue de presse ya daal soxna Amina waaw ca laa nekkoon di ko yeggali léegi nag euh, li ñu wax ci mbirum euh, Sabadola Sabadola moom temps yële passé génnee nañ fi benn image bu gouvernement bi demee foofu ñëpp apprécier am na sax ñu doon diingat naan yaay booyoo yóbbu leen gars yi vaar nekkul ne c'est la première fois ñu dugg ci suñu toolu or yooyu Macky Sall demoon dafa génnee ay images RTS ñu ne leen d'accord ba tey waaye nii ñii defee ko nii keroog bi fa ñoom mbiram su lay demee loolu musul am te suñu kàddu démb mooy suñu kàddu tey. bi ñuy waxit ñu ne bu dee mës naa amit ah man day gisuma ko ku ko gis nag ñu ko indil waaye xam nga nit koo xamante ni nii moom sawaay euh, da nga jël position da ngay parparloo foofu moom jub-jubal jubandi mënu fa am Sabodala nag soxna Amina bañ nekkee xale ba tey ñu ngi dégg suñu toolu or yooyu ca Sabodala ah liggéeykat yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk yàlla dogal ñu am lu leen naqari ci genn xeetu contrat wuy dox si si seen diggante ak seeni njaatige ci ay heures supplémentaires waaye gis nga loolu loolu mooy li nga xam ne moom moo feeñ loolu dafa ñëw tey yàlla dogal ñëw tey rek mbir moomu daal di feeñ mais avant loolu dafa am lu ko jiitu avant ñuy wax lu jëm ci wàllu ñoom seen jafe-jafe. affaire dafa gën a yaatu. mbirum Sabodala man sama problème mooy xam nga jafe-jafe yi dañ ne population euh, askan wi liggéey la mais nañ ci boole waale population bi nga xam ne ñoom ñoo jege bërëb ba mais ce que vivent ces populations là. man xaw ma ndax di ngeen gis village yi nga xam ne moom moo wër suñ toolu or yi ñun daal comprendre luñ moo tax bi ñëwee ba Birame Souleye dem fa bon finalement yow doo mën a analyser bu dee nit kuy xalaat rek nga yow bon tu da nga naan man comprendre ma daal man comprendre ma mel na ni nga ñëw ñu jox la micro nga jël gurtu ndox mi di ci waxee ki nga dendal du la comprendre man mbirum Sabodala moom soose boo bëggee dégg-dëgg. man damaa mënul comprendre yow nga toog ci richesse bu ni mel du sa population du sa dëkkandoo du sa kenn ku ci jariñ gars yi avion sax ñu ne dañ ko fay wàcce di tonni di yóbbu man nag bon affaire bi xaw ma xaw ma ñu non affaire bi xaw ma nit ñi xaw ma man xaw ma ñin dañoo ragal xaw ma dañoo liggéey xaw ma dañoo dëgg liggéeyu jàmbur xawma ma contrat bi ñu signé dañu wax nañu boo leen ko jéemee jubbanti Sénégal ñi fi yeewoo yëpp jour boobu la ñuy génn àdduna ñu tiita tiit bañ na ñuy dee mais yow finalement da nga naan ma déggee coowu Sabadola bi nii man démb ko tuddu benn activiste bu tudd euh, Thié grand Thié ay dara la sant sax mu ngi Paris ay booru minuit la ma woo ne ma est-ce que yëngal li xew actuellement nii nii nii nii nii nii biir Sabadola comment expliquer parce que moom chaque jour daf ci doon def ay njàngat ay rubrique mais finalement man dama naan man kilifa yi fi nekkoon mais mais y a di daal parce que man mënuma gëm ne yenn yu ñuy dund parce que affaire dañ ko war a yaatal waruñu yem sax ci grève bi kese Sabadola ci boppam Sabadola ak Grand S Sabadola. ko war waxuma la sabodolee mais bon yaa dee noo dii de man daal dama jàpp ni lii nekkul ab gestion wu alalu dëkk bi rek mais am na lees waxul parce que man mënu ma comprendre yow nga yor richesse bu nu mel ba pare mais nit ñi di dund ci benn ndóol pauvreté extrême liggéeykat yi nga xam ne ñoom ñoo fa waroon nekk. mais waroon waroon nekk ci ay conditions yoo xam ne mais liggéeykat yooyu ci boppam seeni heure supplémentaire sax niñ ne noonu lañ leen koy fayee méngoowul lañu wax ak règle ak loi yi nga xam ni mooy régir ñun suñu république suñu dëkk bi loi loi loi du travail. mais ñun kat la ñuy liggéeyal. man day man day man day man day man man man jaaxle naa man daal xam naa ni coowu Sabadola Birame Souleye est-ce que waruñoo jël bureau rek bu dee mën a jam ñaajo ñu jëlee ko jam ñaajo yóbbu ko Sabadola wutal ko fa bureau mu toog. honorable à ce qu'il paraît 2018 njëkkoon nañoo euh, euh, kaas loolu noonu ba dem si fu sore sore ci mbirum euh, heure supplémentaire yooyu noonu. Ah, man daal man moom daal man daal li ma wax dafa leer gouvernement bii nag ñëw nañ dinañ négo renégocier waat ay contrat loolu moom lu ala kulli àlin lu mënul ñàkk la danañu waxtaanaat danañu lii danañu lii mais daal xam naa ne mbiru Sabadola suñu nguur gii bu leen ci yàlla mayee ndam ba ñu toog ba expliquer sénégalais comme ni ñu def nii ci napp gi toog bis génnee ay licence ne désormais bis ni ki tey koo xam ne amoo fi kayitu juddu doo daw ci waaxi ñi fi am kayitu juddu tamit te wàllum njub googu ci toppale lañ nekk wala seeni kayit nangam sangam gaare ni ñu ko defee ci napp gi nii mais xam naa ni moom wàllub ooruk Sénégal wàllub ressource minière Sénégal bis bu ñu ko di defee ñun est-ce que kon dinañ soxla sax di xaar pétrole beeg ay ay gaz ak. ay ay nangam sangam euh, kii Amina. Mhm. man daal dama jàpp ne bon. am na daal les waxul parce que man mënuma gëm nga yor sa alal ba pare ne lii yow yaa ko moom. te teddoo nit ñoom fekk la yow nga ne yow oto bi maa ko moom carte Njaay moom moo ci ne mu ne la yow doo la ñëpp ñëw àtte àtte bi jox kooku dëgg mais kon yow Aminata yow am na loo xam ne yow waxoo ko ñi lay xeex mhm. nga oto bi yow yaa ko moom carte grise yow yaa ko moom mais foo leen dem. mais yow ci coono rek nga nekk ak ci ndóol en daal taxaw nañu tembe de tey mbir boobu euh, honorable arrêt bi nga xamante ne moom la ñu arrêté travaux yi euh, mën na mën na indi gàllankoor ci wàllum koom-koom bi. waaye yow ba ne ñoom li ñoom bi ñuy liggéey sax gàllankoor daal waxutuma laa guñ fa seenee taxaw gàllankoor gu njëkk ga mi ngi tàmbalee ci nga yor sab alal ba pare du say dëkkandoo du say néew. du sa dara loo xam ne mu ngi ciy jariñ dañoo xam ne dëgg. dëkk boo xam ne dañ fay bayu bayu or ba noppi te yow. Ah, ah. lu mu dee dee ah, buñ buñ ca amul cinquante waroon nañ caa mën a am sax as dix loolu moom moo jaar yoon te mbirum Sabodala moom gëm naa ni du tey te lu koy régler du daal di yomb. kilifa yi de gëm naa ko dinañ ci indi ay que loolu mënul ne c'est impossible mënul nekk. Mm-hmm. loolu mënul nekk. Mm-hmm. voilà Socé euh, mbirum Sabadola baa ngi noonu te liggéeykat ya daal dinañuy euh, banque seen loxo daal euh, fas yéene arrêté li nga xamante ni moom moo di liggéey ba ndax yenn condition yoo xamante ni ñoo ngi ko fay jànkonteel. waaw jërëjëf soxna Aminata def na effectivement information bi depuis démb ay côté timis <coughs> la ñu ci alerté ah ñu toog di xaar parce que annoncé woon nañ ni dañuy arrêté production Sabadola hmm, nag la fa xew moom wax dëgg yàlla. Euh, mérité na nag ñu taxaw ci euh, jàngat ko ba nga xamante ni daal lu ci saafara dinañ xool ci yenn anam lañ ko mën a indee euh, effectivement arrêté nañu travaux yi ni ki biig dugg ci grève illimitée ñoom nag la ñuy mettit lu mooy ñàkk ak payuk heure supplémentaire mm-hmm. foofu nag dama jàpp ni kër gi aussi daf càllaj ji ndax euh, fii moom boo xoolee taxes yi nga xam ne ñoom ñoo régir l'emploi le travail de façon générale euh, muy convention yi muy code muy euh, code code yeeg lépp li muy imposer employeur bi mooy ki nga xam ne da ngeen di waxtaan ba déggoo ci heure yi mu war a liggéey bépp heure boo ca teg rek da nga ko war a fay waaw Sénégal nag malheureusement amuñu habitude di fay heure supplémentaire pourquoi parce que précarité bi tax na ba ñu bari di ko nangu lu ñu amul benn pexe euh, amaana laxisme wala seetaan bu gouvernement bi fi nekkoon doon def moo tax entreprise yu bari doon doxale noonu mais coppite bi am ci boppu réew mi dafa gën a yokk fit les travailleurs ba nga xam ne li ñu war a kaas aussi dinañ ko kaas fañ ko war a kaasee parce que 2016 la coow li tàmbali ba tey jii ñi ngi ci muy heure supplémentaire muy travailleurs yi muy cadres yi waxtaan nañ ci def nañu daje ñoom ak la direction direction ba ne dana leen defal proposition waaye proposition yi direction ba def travailleurs yi d'accorduñu ci te dàq nañ ko loolu moo indi biig ñu jël décision ne dañuy arrêter la production are boobu nag effectivement dina am ay conséquences waaw dina am ay conséquences économiques am ay am ay conséquences sociale parce que euh, entreprise bi dina perte état bi aussi dina perte travailleurs yi aussi dinañ perte ñëppay perte personne yi gañ kon defe naa lu ñu mënoon artu la et foofu nag dama ci interpeller aussi les inspecteurs euh, du travail yi nga xam ne ñoom ñoo nekk dans les régions problème yu mel nii war nañu koy mën di ko anticiper parce que entreprise yooyu bokk nañ ci entreprise yi gën a dugal xaalis ci réew mi aussi mm-hmm. kon waruñoo bàyyi rek ba nit di grève donte ñoom ñi ngi doon suivre di ci def liñ ci war a def mais daal nañuy faral di anticiper yenn yi ba nga xamante ne arrêt du am parce que arrêt bu amee tout le monde perd tout le monde y compris état bi sax day perdre. même 24 heures sax. voilà dafay dafay dafay jouer lu bari waxatuma laag nag mu nekk illimité. waxuma laag mu nekk grève illimité. Mhm. li ci li ci li ci gën a doy waar mooy bi bi ñu annoncé ñoom seen grève direction bi dafa génne benn note. ne leen képp koo xamante ne da nga occupé woon ay chambre ci grève yi na nga ko libéré. kon moom mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi enflammé. affaire yi yokk xarma karaw dégg loolu aussi travail yi bindaat tontu ko ne ko da ngaa juum parce que da ngay jaawale site travail bi ak site d'hébergement bi doonte da ngaa grève employeur bi est-ce que am na sañ-sañu ne la noo comme yow man maa la logé léegi comme comme da ngaa grève dama lay génne loolu aussi il faut ñu dem xolaat xoolaat taxi moo tax problème bu complexe la boo xamante mais moom gën naa aggraver situation bi. te loolu réaction boobu c'était. voilà mais mais mais. Euh, c'était pas bien réfléchi ci guddi gi la ko def bon je sais pas mënuma ko qualifier ndax mu réfléchi bien ou pas mais moi je parle des faits loolu moo am. léegi nag l'inspection du travail. léegi <laughs> dans tout ça bonne question ils ont saisi l'inspection du travail. de Kédougou moo tax ma ne la autorités yi aussi il faut que ñuy anticiper yenn yi. problème bu amee yow yaay inspecteur du travail c'est l'inspecteur du travail de la région de Kédougou moom la ñu saisir il est bien no courant xam na bu baax li xew moo tax biram Souleye bu amee liggéey it le ministre du travail moom it am na liggéey bu rëy rëy rëy dëgg yàlla te coow la loo xamante ne buñ ci teelul jóg waxtaan ci aussi man mën naa àgg foo xamante ne gënul gënul ci réew mi parce que fii démb lañ koy waxtaanee bi ñuy wax affaire u média buggu ñaanuñu benn yoon ñuy créer ay chômeurs wala di yóbbu ay nit technique te damaa gëm ne waxtaan mën naa am léegi nag lan moo tax Sabodala nanguwul fay les heures supplémentaires mhm. loolu laaj la et damay fàttali ni biram Souleye dem na fa am na visite bu mu fa def fan jële passé rek image yi Ahmed Aïdara doon wax naan guléet la ko sénégalais yi doo ko gis c'est vrai mais dama jàpp ne euh, war nañu mën a am benn cadre boo xamante ne muy muy l'employeur muy les travailleurs muy muy muy muy l'État war nañoo mën a xool ce problème là naka lañ koy régler de façon définitive Ahmed sànq mi ngi mi ngi évoqué question bu am solo mooy fii nii entreprise yi nekk lan moo tax ña fa nekk dëkk ya fa nekk nekk ay dëkk yu ndóol c'est le constat malheureusement c'est des gens yoo xam ne ña nga fa dëkk dans une zone hyper riche te ña fa dëkk ñëpp du ma ne ñëpp ay pauvres lañ mais dangay xool environnement bi rek xam ne fii lu bari manqué na fi. et pourtant alal bu dul jeex mooy jóge foofu ci entreprise yooyu. amul benn contrat bu amul bu prévoirul RSE RSE mooy responsabilité sociétale d'entreprise tey lépp lu fa manqué ci infrastructure de base entreprise yi war nañ ko mën a def muy ay poste de santé muy ay hôpitaux muy muy muy ay jumtuwaay yoo xamante ne askan wi dañ ko war a jëfandikoo muy ay forage muy ay école même yooyu yëpp dañ ko war a saytu topp ko ba nga xamante ne entreprise bi li ko ci war aussi moom it mi ngi koy def gën naa ne daal le ministre Birame Souleye Diop ba mu fa demee discours ba mu fa tenir dugg na ci bopp travailleurs yi mais dugg na aussi ci bopp employeurs yi te employeur bi fi mu toll nii mi ngi jànkonteeg bras a fer bu jógee ci travailleurs yoo xam ne buñ ci teelul jóg. Mhm. aussi dafay gën a compliqué. te mais honorable mi ngi abordé léegi inspection du travail ci li nga xamante ni euh, moom moo di cas boobu euh, alors que deux heures supplémentaires boo koy liggéeyloo nit te fayoo ko est-ce que du mujjee nekk non exploitation la mais mais dafa am yoon fii heure supplémentaire. bu fekkente ni sa employeur fayu la ko mais les textes sont là code du travail mu ngi fi. les conventions ñu ngi fi yëpp a ngi fi. yooyu nag justement les inspecteurs ñoom ñoo ko war di saytu di joyanti mais li ñu doon gis du temps de Macky Sall malheureusement c'est dommage mooy daanaka entreprise yi ñu ci bari dañu fi nekk rek daf leen neex parce que mënuloo yow am signé signé ak ay employeur ay employés di leen liggéeyloo plus que li nga xamante ne moom moo taxoon nga jël leen ba pare ne doo leen fay heure supplémentaire loolu teguwul fenn teguwul fenn. ba pare alal ji sénégalais yi di dégg ñu jóge ci entreprise yooyu te réew mi duñ teguñu ci bët gisuñu ko loolu aussi dafa war a am transparence bu mat sëkk ci ñun suñu or Sénégal dëggantaan ñaata la am ci or sénégalais yi dañ ko war a xam. mosuñu kenn mosul taxaw wax si. amul ñu ñu toppee suñu pétrole ak suñu gaz bi. Mhm. lan la war a toppee ñun li ñu am ci or lan la. ñaata la fan lay jóge lan la ci entreprise yi am lan la ci état bi am yooyu daf ñu intéressé mhm. mais. Sabadola bi fi Birame Souleye demee keroog ci ci la Sénégal yu bari commencé di gis guléet foofu nag mel. da daanaka daanaka foofu tabbu lañ ko mujj mus a def. ah tabbu lañ ko mus a def mbirum or bi. waaw mais parce que parce que même même population yi fa dëkk. foofu dafa am ay zone de sécurité même population yi fa dëkk am na ñoo am na am na ci euh, foo xam ne doo fa dugg même travailleurs yi am na ci zone yoo xamante ne dañ lay interdit te loolu nag dama jàpp ne teguwul ci transparence mm. dama gën ne. quelle que soit l' entreprise bu fa nekk di exploiter or bi oru Sénégal la et les ressources appartiennent au peuple loolu nag aussi bu ñu ko xamee dañ ko war a doxal mais ñi nga xam ne ñooy liggéeyloo travailleurs yi aussi war nañoo góorgóorlu ba sàmmonteeg ak ak yelleefu travailleurs yi koo ci war a fay heure supplémentaire na nga ko fay bépp avantage boo xam ne dafa lié ak seen ak seen ay profil yoon daf la